أمينك على وحي السماء وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحصرنا في زمرته واسقنا من حوضه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلتهم سببا لاجتماعنا هذا وآتيهم بالقرآن في قبورهم السعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في اللحد المظلم وجاء في الأرض عن جنوبهم وارحمهم واغفر لهم ولوالديهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سرق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سرق نصر الحق بالحق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 ألا وإنك أنت القني ونحن فقراء ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أمر جميعا بل لله أمر جميعا بل لله أمر جميعا يا حي يا قيوم برحمتك نستقيس يا قياس المستقيس أقسنا ومن يتوكل على الله يفوه أسبوه حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى له على سيدنا محمد وسلم اللهم ندعوك أن تؤيد خطباتي أن يمن ورئيسها مكسل ومن معهم في أسل الحكومة اللهم احفظهم جميعا وأيدهم وأفلح منا أعمالهم وأن تكون كل قطب تقتل محمودا اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سرق

ñaanal président magis sàll yàlla defal ko jàmm comme ni mu ko waxee ñaan nañ ko yàlla am nañ ci yaakaar yàlla ko yàlla nangu. kon bu ñu fi teewee ñu teew fi suñu wax du mën a bari waaye ñu ngi wax rek ci turu Aliou Mbengue mi nga xam ko defal rëy na amut waa kër El Hadj Abdoulaye Mbengue amu ñëpp payam waaye dañ leen yàlla mi nga xam ne moom mën a fay tey fay te comme fay nga gis yàlla yàlla fay. alxuraan bi ngeen fi jàng ak ñaan yi ngeen fi ñaan ani amut ak payam ani amu président président bi mujj tudd amut ak fay te ko fayee mu ngi def yéen bi ñu am coom ko ñaan mu am jàmm bu ko ko yàlla defalee ñëpp xëj nañ ndax président bu amul jàmm kenn du am Sénégal gii mu nekkee def anatanda yalla xam fu ko yemal bu amul jamm ken do am kon nak yalla ko yalla may dam say ak baati may ko ñu ci des ñëpp na gu turam ak santam di len gëram di ñaan yalla bes bi yalla na yalla seen borom yalla na ko taxame kaddu gi ma jël nak dama ko jël ci turu Talla Mbengue parce que ma ngom ñoo dekk xalé yi nga xam ne la jaboote juddoo ci sama kanam ñom ñëpp ma yar len ba tol ni ma xam ci ñom ak jup ak rafetal Abdou nekku fi mais magam a ngi ni toog kon motax may wax sen kaddu lay wax vraiment dama len di geureum di len sen di len ñaanal yalla parce que ma ak ñom ñoo ñoy ma len yar ban fenn ba tay ñepp gis len dekk ak ñom musuma léegi ci ñom dal du nek ben takalo di jappale sen bay kon yalla nga xamne mo meuna may yalla len yalla defal fannu gudd ak wer yalla len yalla sam ñom aniya ñom cheikh ak ñom mud yalla len yalla defal fannu gudd ak wer parce que mbir mo ko fekk du ko wax ñi meññi maa leen yar ju dund nekk ak ñoom musuma gis ñoom lenn lu dul baax ànd na nekk benn jàppalante kenn leen dégg bu wax bëree du waaga taalame ku ne xam ne ko seen làmmiñ ñoo ko moom seen tànk ñoo ko moom yàlla mi sàmm yàlla leen yàlla sàmm lii ngeen am jombu leen parce que seen bàyyi dafa dafa dafa dafa liggéey lépp tey taalame nga tey seen daara gi ñu toog teraa ngay taalame ngi génn benn loxo kon nag yàlla mi nga xam ne moo sàmm yàlla leen yàlla sàmm defal leen fënn ku defal leen wér lii rek laa newoon naa ko ci kàddu ndax lii dama koo xam dama ko dund ak ñoom te su ma ko dundoo dama ko wax mënu ma ko tax a kon nag maa ngi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla lii yàlla fi sax yàlla na yàgg taxaw ci daraje Muhammad maa ngi jégalu bu baax nag. ci ki nga xamante ne moom moo sabab jeetaay bi muy suma jarbaat Aniya maa ngi lay nuyu. ci turu association des imams bu Daara Jolof di la sant di la gërëm di taxaw ci yow tuuti rekk ci lii nga def wolof de mooy wax ne ku rëya picc mu sëddale ci laaf su rëyee ñëy rekk nga suur kon yàlla na la yàlla may nga rëyab ñëy foofu dama ñaanal yàlla ci biir assemblée nationale bee nga ne martaba yi fa gën a muy vice président yi même ci président yi yàlla na la ci yàlla boole yàlla attan na ko mun na ko te moo xam kan la koy jox yaa say collègue ak say nawle yi mu nekk waa Jolof ndaxte bëgg sa bopp du bañ sa mbokk suñuy mbokk yooyu naw nañ leen bëgg nañ leen yàlla na leen yàlla jàppale su loolu paase ci lii nga def nii borom bi tabaraka wa taala mooy wax ne inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala yàlla du neenal ku def lu baax te wama anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu lépp loo def ci lu baax nga génne ko ci sa alal tamit yàlla dana fa wuutal lu ko ëpp kon soo amee sa tuut nga indi ko nga bokk ak say waa waa dëkk ak sa mbokk ak jullit yi yépp dañuy ñaan yàlla yàlla na la yàlla yokkal waaye ci biir loolu am na ku ko wax sànq même yow ci sa bopp yónne nga ko fi olof mooy wax ne peccum liir bu neexee yaay ji moo jàpp ci mbagg yi kon ñi nga xamante ne ñoo la teete ba yóbbu la foofu ba nga am lii nga am nga mun ko indi fii ñu bokk kook yow ñooñu tamit dañ leen di ñaanal yàlla tàmbale ko nag ci suñu ministre yu baax yi fi ne muy Aly Ngouille Ndiaye muy Samba Ndiobène yàlla na leen yàlla fulal li ñu am yàlla yokkal leen seen ndomba tànk gannaaw loolu ñoomi tamit am na ñoo koo xamante ne moo leen féete ci ko muy kañ muy président de la république muy Macky Sall Sénégal yépp gis nañ li muy liggéey Sénégal yépp gis nañ li muy def kon liggéey du nax boppam du nax boroomam li mu liggéey loolu la nit ñi di ko fay ñu koy ñaanal yàlla lépp lu mu mébét tey ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu détail bi tey détail bi alxuraan lu ci gën a bari kaawul bu dox nañ kon ki dajale loolu li mu def rëy na waaye nag yàllaa ko baaxee ndax kenn ku ne am na xalaat waaye xalaat bi xalaat bu riis la wallaahi xalaat bu riis la xalaatuma sàmm xalaatuma dem na xalaat imaam yi te jàkka bu nekk kam na imaam bu fa nekk mbooloo jiite ah ci ñaanal mbooloo mbooloo bu di ko ñaanal kon bu dajalee noonu kon Sénégal yàlla na defoo ci bés bi. Mufti Habib Mbengue moo leen di nuyu ci baat asalaamaaleykum wa rahmatullah ne xanaa ne am cant ak mbégte ne ci ndaje mii xam ne wax dëgg yàlla daje nañ ko fii ñun ñëpp ne te gi mu ciy jiital ay bokkam. nee di jël cant gi yépp nag teg ko ci loxo sunu xalifa bii mu cantal ñu waa Mbuula gépp nee mi ngi sant di gërëm Chérif Islim mi toog ndax Chérif daal daf ñoo bëgg yéenañu te yàlla rek tax nee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy imaam yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew nee gi ñuy bépp délégation boo xam ne ak fu waay mën a jóge rek ñi ci biir ak ñi ci leen nuyu ñoom di leen gërëm nee di beral nuyoo ci le maire de Mbour nee maire yi fi génnee délégation yëpp nee waaye di sant le ministre Aly Ngouille Ndiaye nee moom kàddu yi na ñàkk. ndax nag lépp rek lu fi war a rafet rafetal ngeen ne su ngeen waxee daal warta wax waaye ne xam nga nga woote say ndawleeg say kilifa say bokk say soppeek ñëpp ñëw wuy si la ne googu mbégte nag wax dëgg yàlla mënu koo denc ci xolam bi faaw mu génn ko ne bés bii bi ko commencé ne dafa woo ma El Hadj mu ne ko dama bëgg ñu wàcc ay kaamil joxe ay ndimbal ñaan ci réew mi jàmm ñaanal Jolof jàmm mu ne ko ne ko kaamil de nag ko jagleel waa Mbuuna mu ne ko de ne lii tax nag di la consulter baax ne man damaa naroon yëkkati sama téléphone rek daan na leen ñëw leen dañuy jàng kaamil ne jagleel googu ma ko jagleel ne te di dëgg dëgg sama xol dafa cee seet ndax mënoon naa wax ne gone laa ne bu yebal kenn mu ñëw waaye alxaaji moor ma ngi ne ne Dakar lu jóge waa guy tëdd ñëw waa mbuula ñëw ne sama waa kër bay ñëw ne dëgg dëgg aw ma seen bay nee xanaa kay damay dellu rek di leen dénkaat sama bopp nee fii ñu toll muy jamono lu waay jëfandut sa doo ko fekk fa nga nee lii ñuy jéem dañ koo tële waaye dañuy def rek ngir yàlla nee député de daf maa def waaye li may liggéey moo ëppal solo ndax damay xëy nekk ci marché bi yàlla wërsëgal soo wërsëg. balaa weeru député jot ma maanaam juróomal wala fukkam ne kon tur wi daf maa waaye lan sol mooy la ñu bay taala bay woon liggéey leen jariñ liggéey dimbali leen ñi nga tane liggéey leen jaamu yàlla mais ci rek lan ne moo tax ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla dolli ñu sutura nee ñu fi jël kàddu ñëpp dañoo baax rek ndax rek kenn ko nag. ak moom sunu borom nee na ku ko jokk ma jokkut ku ko dagg ma waaye ñun ndaw ñi ñoo des gannaaw tey waaye mag ñi liñ ci ñi fi nee ñu ñëpp benn nee daal ngi kon mi ngi sant yàlla bu baax di sant samay bokk di sant waa Jolof di sant imaam yi di sant shérif ak ñi ko àndal ne sama kàddu su ma ko toppee dafay gudd ndax da ngeen maa jàppale ma di ma ñaanal di ma xelal nee ñu toog ci saal bi ñëpp mën naa jaar seen tur nee ci gàttal nee président Macky Sall nee dama koy sant ndax soo fekkee ndaw nga tànn ko yóbbu ko assemblée mu jeexal nga tànnaat nee da nga koo yéene ne kon daal yàlla na yàlla jàmmal ko moom président Macky Sall ne bis bi tey bisu ñaan la ñaanal nañ ci Sénégal waaye moom mi président Macky Sall ak man ni ma xamee liggéey ni ma xamee ay jëfam ni ma xamee yéenam ci Sénégal yàlla ko ci yàlla may jàmm ak bépp bu mébét bu mébét yàlla ci yàlla defal jërë ngeen jëf jigéen ñi nee mi ngi sant bu baax nee su ma xewlee nee daal gépp daan dajaloo association fondation yi fi ne yëpp nee maanaam daal man mi man mu xeebu nee dafa lu mën leen lu ko jaar jigéen ñi waaye nag su soobee yàlla lu ma man te yàlla rek tax danaa ko bokk ak ñoom nee daal honorable nee mi ngi sant fi teew ñëpp nee ñi may àndalit nee xeebu ñu ma benn yoon nee ñi ma mag bëriwul waaye lu ma bëgg suba ba koor ña nga ca kon nee wax ji gudd gàtt ak cant ak sant nag sunu borom bi subhaanahu wa taala ak mbégte nee ba yugu ba yugu juba nee mi koy sant baax ne di di jote sant ñi nga xam ne ku fi jël kàddu rek sant na ne bi xew wi amee ne sama côté am grupo ñu dugal ci groupe bi bés dem di ma wees naan dañ ma ciy dimbal ne te loolu nag di lu rëy mano man ma ne leen bés bi de bésub cant la bu ma sañoon kenn ku ne rek waaye seen yéene dafa rëy rek maam Sidi mi ngi fii toog jóge ba Louga nee na bay nee na jeng ne kooku moom dañ koy bàyyi yàlla mi ngi nii toog ne mbokk ku ma yeggul ne moom ak Abdou Cissé ñoom ñoo fay yegg kon daal yàlla yàlla fayal ñu leen ne wax naa sama kër kër kër naay sant naay sama kër kër baay ne di ñaan rek te yàlla nagul ñu ko. nee ndogu yi nag nee jaamu yàlla yi doo nga tax ñu def ko nee conférence bu Oustaz Birane Salam mi ngi ñëw nee day ñaan ñu toog fii ci conférence bi suñu dogoo ba pare ndimbali fi nekk ku ci wër de gëm nekk rek jàppal na danga ci jot jox ko jaamu yi nee mi ngi delluwaat daal di sant ay bokkam di waa Mbuula di leen gërëm di leen xamal ne lu mu mën dafa fekk ne yàlla moo ko dogal waaye lu bu lu ma naa ko waa Jolof waaye rawatina nag nguuram bi moom nee daal mi ngi baal ñëpp a di baal ñëpp a di ñaan yàlla yàlla fi waa di jéggalu nag ci kàddu yi rafet na nee jërë ngeen jëf jërë. nee fa tabaarakallah su ma ma wax ba El Hadj nee fa tabaarakallaahu lépp baax na nee ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax nee di sant yàlla nag di ko sant bu baax nee alquran nag rawatina ci biir koor gii mooy anniversaire alquran ndax jibril weeru koor bu day ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di naan ko mu tari mu tari yàlla moo ko moo gën a xam ñëpp moom ko yónni ci moom ne kon jàng alquran ji ci weer koor ne jëf jëf yu baax yi nga xam ne jub na fi joxe ñam ak joxe teraanga ci biir koor yàlla ne dërëm boo ci def boo def maanaam dana dem ba ci juróom-ñaar téeméer ba mu ëpp loolu waaye nga nag ci koor gi ne waaye nag ci koor gi moom kenn xamut nu lim ba toll ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ku tabel nee na koor su ñëwee ne dara dërëm du toog ci poosam joxe rek joxe rek joxe rek yow nag liñ lay ñaan ñaan goo xam ne ñaanal nañ ko sax. mooy assemblée bee nga taxaw. lépp loo xam ne kii méngoowut ak diine. ne yow moom bu ko woote mukk bu ko woote mukk. tànk yaa def. nee tànk yaa ngi koy def. nee tànk yaa koy def daal incha imaam yeeg sëriñ yëpp ñi ngi sa a di la lépp loo xam ne kii day daane diine. ni lépp loo xam ne day daane diine. luwa bu ñëw depan. mbaa. luwa luwa bu ñëw foofu. depan luwa bu ñëw foofu. yow na nga ca bon. Euh. maandu. ko rek maandu ci. ne koy ñaan te di ñaanal ne bu soobee yàlla guddi ak bëccëg subaak ngoon ñi ngi sa gannaaw di la ñaan ndax alquran eh, yàlla bu mbokk ndax alquran su fekkoon am na mbokk mooy ahlullahi mooy ñiy jàng alquran eh, eh, ne yàlla daal moom daf ne man képp kenn juruma ki juruma kenn waaye alquran daal ñu koy jàng fekk na damay am mbokk ñooy samay mbokk ne kon soo leen teralee teral nga yàlla yàlla moom mooy teral yàlla soxlawul dara. ne teral yàlla moom mooy teral sa bopp ndax yàlla soxlawul dara. loo mën a def ci waaye nag loo mën a def ci lu baax. ci imaam yi. ci imaam wallaahi loolu it yàlla dana la ko uh, rambus. mais loolu lépp ko rambus. Hmm. ne dafa xat dafa xam ne te ne nit ñi ñu ci yitte yi. maa ngi ñaan nee e, nag nee ngi ñaan mbokki taalibe mi képp koo xam ne ku ci mën a xaar. na nga xaar ngir yàlla programme bi ndax programme bi jeexagul programme bi dana dem ba gannaaw ndogu incha allah képp koo xam ne waaw ne alaaj Ousmane après incha allahu rabbi nan xam ne dana fi teew ak waa sanaawu rasul kon loolu yaakaar naa jar na fay patiente nag jar na xaar de daneen affaire rek ci de kon sërif ne ñëpp nan tàllal loxo yi waaw ko honorable nee na Chérif bala ñaan ne biñu dem assemblée président mack Sall dañoo dajale mu ne nit ñi ñu ngi ñaawal ci bitti imam fallu Fall mi ngi اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا ويا ذا النعمه التي لا تحصى عددا نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية ودوام العافية نسألك اللهم ببركة هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا ببركة رمضان ما فيه من النفحات والخيرات والبركات نسألك اللهم أن تجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين جميع الشرور والفتن والمحن والبغض نسألك اللهم أن تصلح ذات بيننا وتؤلف بين قلوبنا نسألك اللهم أن تصلح حال قادتنا في الدنيا وقادتنا في الدين اللهم احفظ قادتنا في الدين واجعلهم أئمة يهدون ويهتدون ويرشدون إلى سواء السبيل آمين واحفظ قادتنا في الدنيا واجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة آمين وحب الإسلام والمسلمين إنك سميع مجيب واغفر لنا ولوالدنا ولوالدهم ولجميع المسلمين واحفظ أماكنك المقدسة في كل مكان ويسر لنا جميع الأمور واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا انك سميع مجيب اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا غما الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا غائبا الا رددته سالما معافا ولا فقيرا الا اغنيته ولا ضالا الا هديته